très plaisir de vous retrouver comme tous les matins bienvenue dans Avoir Combien de la mi-journée a baax dajale la timé la doyen Mamadou Sy Albert bonjour. bonjour sister maa ngi lay nuyu di euh, bu a xaw nañ niroo ay couleur de lan la. waaw tey dañoo dañoo dañoo. gis lu ñuy niroo couleur dafa bëri trop. te man loolu neexuma nga mel ni Birame nii xam nga xam nga Birama moom ñu ngi koy nuyu borom ndàngaan sàmb ak yooyu. Mhm. xam naa ne mi ngi dallu bu baax. di la nuyu di la jox sa wàccuwaay. di mhm. nuyu euh, doyen. di ko mhm. ñaanal yàlla comme ni ñu koy defee saa su ne. yàlla may ko gudd fan ak wér ak wér la mu nekk suñu kanam di ñu di ñu teg te di ñu tàggat. di ñëw kër ñi nga xam ne ñoo safoo di ñu seetaan à cette heure là si plateforme yëpp. di nuyu euh, waa kër gi yëpp di ziar ñëpp. di jaay askanu senegal ci dese. Euh, Gaston Mbengue bi jërëjëf moo moo tax sax démb avant première amul ndax ñu ngi doon retransmettre en direct li nga xam moo di euh, cérémonie levée du corps bi ñu ngi koy jaalee Sénégal yëpp di ko jaalee ak lamb yëpp di ko jaale waa réew mi yëpp di ñaan suñu borom euh, xale ko àjjana firdawsi euh, ci turu waa kër gi yëpp ñu ngi koy jaale Sénégal yëpp suñu gan ñu ngi koy xaar léegi mu yegg si nee nañu moom mu ci biir kër gi moom lañ doon xaaree te tey dëkk bi moom defe naa ñëpp ci bokk yam gis nañ li nga xam ne noonu la mel ñu ñaanal yàlla rek suñu borom dimbale ñu ba gars yi gën a euh, yaru ci tali bi parce que li bloqué nit ñi tey côté bii xam naa ne ci kanam dinañ ci ñëwaat waaye itam euh, ñu bàyyiwaat xel bu baax a baax a baax ne nit ñi dañuy xëy di dem ñu xool circulation bi waxoon nañ ko keroog dinañu ko waxaat gars yi nañ ci gën a def yar fekku ci fekku fi doyen sax waaye wax nañ ko chauffeur yi keroog mag Adama Fall gars yi ñu gën cee def yar parce que fan yi moom wax dëgg yàlla accident yi mu ngi xaw a lool bu ko defee ñu àndandoo waa Régis xool li nga xam ne yéen moom lañ xëyee en attendant ñuy installé ki nga xam ne Modou Ndiaga Diop mooy suñu gantey ñu fas yéene waxtaanee lu am solo loo xam ne ba léegi ñu ngi ci mu di grève yi nga xam ne moom la agent collectivité territoriale yi nekkee dinañu ci mais en attendant xëyee le Bassirou Diomaye Faye qui pour l'info <coughs> ah. le projet risque le projet risque d'être mort le projet risque d'être mort waaw waaw waaw ça c'est le peuple qui le dit mm-hmm. ok Notre Quotidien plus de 200 milliards issus de la drogue recyclée dans l'immobilier hmm? du ma ne parce que les immeubles foisonnent. bu mënee moom. les immeubles foisonnent. kenn xamul lii lan la yi nga di maamu immeuble ci réew bi wallaahi ay gratte-ciel yu dul jeex. régulation du foncier une course d'obstacles tout à mhm. fait. c'est vrai tout à fait ça c'est Walf ñoom itam ñu ngi leen di masaw bu baax a baax. Mhm. waaw Walfadjri ñu dem beneen journal ñu xool beneen Le Soleil. Hmm. Les états généraux sur le prévus avant juillet le transport. Hmm. Le président Bassirou Diomaye Faye au Dakar tey la waaw incha allah ce l bien ok ñu dem beneen. le quotidien fay sur la voie sale maanaam ci yoonu Macky Sall ci la fay nekk. Faye sur la voie sale ok ça c'est le quotidien qui le dit. politique publique Pastef place tout à fait. ok on y va ñu dem benn xool beneen. La tribune. La grande part de responsabilité du ministre des Finances par rapport à quoi ça te quand l'opération gox Diomaye écarte Diouf Sarr. Abdou Karim Sall Maguette Sène Ousmane Sylla Ousmane Sylla moom bettul kenn. Mhm. Mhm. on l'avait dit la semaine dernière. vraiment lu bi quoi. ok ñu dem beneen après la tribune Sud Quotidien en 2020 déjà l'OFNAC alerté. Mm -hmm. sur le foncier. Mm -hmm. sur le Mm-hmm. ok ñu dem si beneen. la tribune jàll na ñu xool beneen. controverse juridique enquête. par sur le foncier. sur le foncier encore Libération. Les ma la mafia des semences cernées. Ah oui, c'est l'agriculture. Mm. Il faut que je demande à mon oncle. campagne agricole. Il faut que je demande à mon oncle, Babouka. Il faut que je lui demande. ñoom instant bi ñu ngi ci préparation yi de ah. waaw. sur l'agriculture. Mm. sur la campagne agricole. sur la campagne sur les intrants. doy na waar daal. C'est aujourd'hui non. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui oui. Ils sont ils sont présentement en réunion. Ils sont avec le premier ministre. Oui, oui oui, c'est ça, c'est aujourd'hui. C'est vrai. yàlla baax na on espère que dina am lu ci génn am solo ayca ñu xool beneen loolu la yéen kaay xëyee tey à peu près doyen Mamadou Sy Albert waaw disons que actualité bi toujours quand même c'est les rapport les rapports de la Cour euh, des comptes mm -hmm. bon il euh, y a y a trop de euh, malversation c'est c'est quand même inquiétant euh, soo xoolee les rapport là c'est-à-dire finalement les secteurs sociaux ñoo gën a euh, am impact euh, que ce soit l'agriculture que que ce soit euh, bon les autres secteurs la la santé euh, peut-être que dans ces rapports-là on n'a pas tellement parlé de d'éducation mais c'est les secteurs euh, vraiment sociaux et euh, santé éducation ou l'agriculture mm-hmm. c'est assez inquiétant quand même que mu am en moins de deux trois trois ans que ñu découvrir euh, cette gravité des des détournements de l'argent de l'argent public et à la limite ça ça rappelle un peu euh, période très sombre dans la gestion du Sénégal c'était la la période de de l'ONCAD euh, ONCAD tout le monde se souvient les, les le le le gaspillage, la dilapidation des biens au niveau de, de l'ONCAD. Mmh. Euh, les banques, on a, on, a, on a dépouillé les banques sénégalaises. C'est le même système qui se reproduit en, en 2000-2024. Ça, honnêtement, mmh. c'est inquiétant. Bon, aussi, il y a 200 milliards <laughs> recyclés dans l'immobilier. Ouais. Bon, c'est vraiment, une économie, d'affaires dans tu souffres. Complètement. dafa daantu suuf et je pense que euh, peut-être que dina dem justice mais pour moi peut-être il faut aller euh, à la justice ñu de faute faute ñu mais ça mmh. nécessite quand même que administration bi pourquoi pas les états généraux de l'administration surtout parce que y a un problème de compétence mmh. ki nga xam ne amul compétence gérer projet wala amul compétence gérer ralis wala amul dafa am des soutiens politiques ou religieux c'est pour l'essentiel les acteurs mmh. politiques qui détournent avec la complicité des agents de, de, de, de l'administration. Mm -hmm. Je pense que le, ça, c'est un vrai, vrai, vrai problème. Euh, c'est beneen actualité bi c'est le, le foncier président arrêté na beaucoup de beaucoup de travaux on mhm. attend on attend la suite mais là aussi c'est le même problème mhm. c'est-à-dire que le foncier tey jii euh, bon on ne sait pas où est-ce qu'on va euh, su arrêté baax na mais quelle va être la suite Est-ce qu'il y aura des enquêtes Est-ce qu'il y aura des débats avec mm. tous les acteurs Est-ce que ça ne va pas être un éternel recommencement Parce que ouais. Macky Sall avait pris ses décisions, Wade pareil, Abdou Diouf pareil, mmh. mais le foncier demeure un problème sérieux. Donc, mmh. c'est bien volonté politique du président Ambarna, mais est-ce que ça va être suffisant pour, pour réellement gérer le problème euh, du foncier D'autant que bon état bi xam na à peu près quelle est la situation du foncier. Mmh. Il y a eu des commissions nationales qui ont fait des enquêtes qui ont publié des rapports mais ça n'a rien rien donné. Mhm. bon donc c'est les peut-être ñaari yooyu daal ça c'est marquant pour pour l'actualité l'actualité politique mm -hmm. bon évidemment c'est la journée de la presse malheureusement ouais, la presse la presse n'en a pas parlé parlé c'est dommage ouais. des journalistes quand même <laughs> ne, soulignent pas la journée mondiale de la presse quand même avec tout ce qu'on a vécu euh, pendant <laughs> cinq ans dix ans mm ça montre que taxawaayu presse bi des na. bu baax ah, des na bu baax c'est c'est la même chose pour les pour les autres questions la fête du travail. Mmh. bon est posée euh, depuis le premier la personne revient. Les, les problèmes qu'on est en train de voir là les détournements santé détournement agriculture détournement éducation mmh. mais c'est là que les travailleurs souffrent le plus respect du contrat respect du salaire respect des engagements au même moment on détourne dans les secteurs sociaux mm-hmm. donc il y a, il y a un problème euh, bon maintenant pour la situation des travailleurs particulièrement les journalistes mm-hmm. mais c'était aussi une occasion mm-hmm. de revenir sur les assises euh, de la presse. De la presse. Il y a des conclusions, ils, ils vont donner ça au président Diomaye. Mais le problème reste entier là aussi. Muy Wade, muy Macky Sall, ils avaient pris tous des engagements. mais tey jii boo xoolee la situation les journalistes jàmbaar lañu donc man il faut les féliciter ils travaillent dans des conditions extrêmement difficiles mm -hmm. euh, bon am nañu yaakaar que la nouvelle majorité xëy na dina dina dina déglu presse bi mais pour moi euh, ce qui concerne presse bi daal il faut des actes concrets mm -hmm. c'est pas des promesses la situation tout le monde connaît la situation de la presse Tout le monde connaît les solutions, mais personne n'ose appliquer les solutions. Et ça, il y a la responsabilité de l'État, mais il y a la responsabilité des patrons de presse et des journalistes. Mm -hmm. Moi, j'ai jamais vu, compris que nga nekk journaliste, bah, tu es derrière l'État ou derrière un patron. Ah, le métier c'est toi c'est pas l'État c'est pas le patron. si les journalistes ne dépendent pas leur métier. Mhm. ce qui arrive euh, arrive <laughs> ku nekk da ngay wut foofar. mais ku nekk c'est du gagne-pain. c'est métier, qui est dommage le, le métier du journaliste c'est pas du tout ça c'est c'est c'est comme le médecin. Ouais. Bah, mm -hmm. il mm-hmm. travaille sur l'information il a son métier il contribue à la démocratie il faut valoriser le métier au lieu de chercher les raccourcis. Ouais. Euh, journaliste loolu pourquoi tout le monde dit des journalistes alimentaires. parce que boo leen mayee dara li nga bëgg duñ ko def dinañ ko def. loolu de mooy problème c'est un problème. mais je pense que les journalistes la presse en général waroon nañu dajaloo euh, doonaloo benn waxandoo ñoom ñëpp sur la journée de la presse sincèrement. Hmm. au moins ñu mën a les gens n'aiment pas que je défende ça mais tant pis pour moi syndicat journaliste c'est bien syndicat patron c'est bien mais il faut un ordre. Mm un ordre des médecins. Mhm. nga nekk euh, entrepreneur nga nekk euh, euh, exerçant l'ordre dirige le métier que ce soit l'avocat que ce soit le médecin mais les journalistes ils n'ont pas d'ordre patron bi défendre intérêt am syndicaliste bi défendre intérêt am journaliste bi défendre intérêt am <laughs> mënuñu am ordre donc si ñu amoon ordre moi je crois beaucoup à ça un ordre des médias mm-hmm. ça va assainir Mhm. parce que du soo bokkee ci ordre bi c'est l'ordre qui va te donner la carte professionnelle par exemple mm -hmm. ça il faut aller pousser la réflexion suñu mënoon am en tout cas un ordre des des médias mm je suis sûr que euh, ordre mën na assainir lu bari lu bari lu bari parce mhm. que su amee ordre kenn du fa dugg comme ni loolu neexee mhm. li ñuy wax ci presse bi parce que bon aujourd'hui ils ont fait focus sur euh, les nominations. parce que li nga li gën a jàll. maintenant am na benn titre boo xamante ne duma ci encore Diomaye démaquille sa waroon na du warul surprendre kenn. que c'est un nouveau pouvoir qui s'installe il faut qu'il vienne avec ay nit ñu bees donc on ne peut avec les adversaires loolu mënul nekk donc luy moom warul bett kenn. mais on peut diriger avec les meilleurs quand même. même si ce sont des adversaires oui oui même si c'est des adversaires maintenant candidature daal bëgg naa cee interpeller maintenant cela cela signifie que appel candidature bi bàyyi nañ ko. yàgg na nekkatuñu ci. parce que aussi ça fait deux deux vagues de nomination yoo xamante ni peut-être euh, suñ ci defoon appel à candidature peut-être euh, ARTP qui une euh, haute fonction peut-être bon maa ngi koy féliciter de passage ah Dahirou Thiam qui est le nouveau directeur de de l'ARTP qui est un ami est et avec, avec, qui nous avons partagé ce plateau-là plusieurs fois au mm niveau mhm. de la télé, qui est passé plusieurs fois par cette TV pour euh, porter des communications. Je vais féliciter par rapport à sa promotion. Mais bon, il gère une boîte peut-être euh, dans la rupture, nous allons vers euh, l'appel à candidature, comme nous sommes pour Port, pour... Mais bon, puisque, bon, nous sommes je pense que revenir sur cette question-là peut-être day andi ay ay difficultés on a parlé de la de la visite du président sur euh, sur l'affaire les l'affaire foncier et mm -hmm. puis ça aussi euh, il faut il faut il faut saluer cette démarche même si c'est c'est c'est un peu surprise la ko waaw waaw il faut saluer cette démarche maintenant est-ce que juridiquement am na am na vocation arrêter arrêter yenn yi Maître Doudou Ndoye est-ce que juridiquement am na ci am na ci droit mm. donc nous devons pas avoir une un président de la boo xamante ni dafay nekk ci réew mi di violer les lois parce que aussi avec la l'abrogation des décrets de nomination des des euh, des présidents de cour bi nga xam ne ci conseil supérieur la mën a ah. donc foofu il a la l'article 90 euh, de la constitution te alinéa 4 donc foofu mënoon jàpp naa ni même su nekkee da doon da doon abroger décret yooyu waroon na mun a convoquer d'urgence le conseil supérieur de la magistrature pour revenir sur cette décision là donc mënuñu nekk di casse benn affaire après encore une fois arrivé au pouvoir ñu ñu ñu tegaat situation yooyu maintenant par rapport à à la situation du blanchiment des capitaux au, niveau de Dakar <laughs> ça sa sa ça les immeubles pullulent les immeubles pullulent au niveau de Dakar parce que li immeuble di tawee taw taw taw taw euh, on doit se poser des questions fan la ñu jëlee ressources yi bon rappelez-vous hein, le, la douane a fait un travail extraordinaire par rapport di arrêté nit ñi par rapport à la drogue et, euh, et autres mais peut-être am na ay moment yoo xamante ne am na lu rëcc ba dugg ci biir réew mi ba ñu mën a régler seen i problème mais tamit c'est une question boo xamante ni nit ñi war nañ ci état bu bees bi war na ci mën a xool gas ci pour voir comment les gens font pour construire ces immeubles la Mm-hmm. maintenant euh, su ñu demee ba xool ko peut-être on sora fan la xaalis bi jógee et comment ils ont fait pour euh, pour pour pour réussir ces ces prouesses là quoi. Mm-hmm. donc euh, loo loolu la quoi parce que dafa am loo xamante ni c'est une loi qui l'a organisée et je pense que. Euh, avec sa démarche qui nouvelle peut-être sur la question des foncières sur la mm-hmm. question foncière moom am na ci beneen wit maintenant nag sur la question foncière dafa am lu ma ci xaw a jaaxal parce que dañ jël fourchette pour saytu. on a parlé de de de de de deux mille vingt à deux mille vingt quatre. maintenant ma question c'est pourquoi deux mille vingt ba deux mille vingt quatre pourquoi pas deux mille douze ba deux mille vingt quatre. parce que sooy def benn affaire c'est parce que am na peut-être benn lu tax nga koy def maintenant nous devons avoir des explications sur cette fourchette la et pourquoi pas deux mille douze parce que beaucoup de choses se sont passées. Mm-hmm. les attributions au niveau de, du littoral se sont passées en 2012. Ouais. N'est-ce pas? Ou bien dans, dans cette fourchette 2012-2020. se sont passées ici au niveau de la corniche ni ñu fàttaliku euh, Barthélemy Diaz ba mu fi duggee ci biir corniche bi commencé di wane ay mbir. Mm-hmm. donc au niveau des des des des de des filao attribution yi ça a commencé de 2012 ba ba ba 2024. Mhm. donc pourquoi le président de la République Bassirou Diomaye s'est limité à de 2020 à 2024. Mhm. est-ce que il y a pas quelque chose qu'on est en de cacher aux Sénégalais. parce que aussi ñun ñëpp xam nañ ne l'attribution des terres ça se passe au niveau des municipalités certes mais au niveau des impôts et domaines. Mhm. la direction des domaines a un travail colossal bi nga xam ne moom lañ def. Mhm. donc dans les enquêtes que les gens sont en train de mener on s'est on s'est rendu compte que beaucoup de gens ont acquis des terres au niveau des filaos ñi nga xam ne dañu far ak ñoom. y a un ministre on dit que y a un ministre de la République boo xamante ne am na ci quota on nous parle général boo xamante ne am na ci quota on nous parle des gens de la des mouvements de la société civile ñoo xamante ne am nañ ci quota donc c'est des questions qu'on doit se poser pourquoi cette fourchette de à 2024 pourquoi pas 2012 donc qu'est-ce qu'il y a entre 2020 à 2024 voilà pour pourquoi cette fourchette de 2020 à et sur la question foncière parce que aussi bu ñu fàtte ni ñi ñuy jiite. bu ñu audité nañu audité daal. voilà su ñuy audité nañu audité durant toute la tout la toute la toute la mandature. toute la mm. magistrature du président de la République Macky bu ñu fàtte nous avons des inspecteurs des domaines. ñoo nekk ñoo nekk ci kaw ñoo nekk ñoo jiite réew mi. et dans la déclaration de patrimoine pas officielle le président de la République Bassirou Diomaye Faye a acquis sa maison en 2017 ses terres son terrain. Mm-hmm. donc su ñu nee fourchette u 2020 2024 donc fourchette boobu génn na ci. am na ñeneen ñoo xamante ne génn nañ ci fourchette boobu maintenant lan la ñuy nëbb ci fourchette u 2012 2020. lundi incha allah loolu la ñuy donc il faut que les gens posent cette question là pour savoir xam ni sénégalais yi peut-être. ñu ngi réfléchir par rapport à cette situation lan la ñuy nëbb ci littoral bi si fourchette 2012 moom la ñu waxtaanee lundi incha allah donc c' est des questions suñu gan yi waaye soo si littoral dinañ fi ñëw voilà c' est des questions que pose et qui méritent des des des réponses des dinañ ci ñëw waaye tey dañuy waxtaanee beneen problème <laughs> baraay loolu ñu nuyu la njaga ñu ngi ñu ngi lay baal nag ci ci bi du kese tey ñëpp a tardé ndax dëkk bi moo xat waaw dëkk lay nuyu bàyyi la nga nuyoo ak téléspectateurs yi waaw di euh, remercier ma sister Maria mm. ci invitation bi jërëjëf ñoo ko bokk c'est normal nuyu sama mbokk liggéeykatu gox-goxaan yépp yi nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal mm-hmm. c'est sûr que ñu ngi suivre émission bi avec intéret parce que bu ñu yëgee ne am na ku war a dem émission rek ñëppay scotché mm-hmm. wu pour vraiment euh, après ñu analyser ensemble mm donc maa ngi nuyu ñëpp ah, di nuyu les secteurs généraux des des organisations syndicales di nuyu waa sama secteur général euh, Daouda Gakou mhm. nga xam ne actuellement mu ngi fële ci Dakar bi c'est sûr que ne dinañ defal ñaan suñu dossier bi seen dossier mën a yëngatu tuuti sotti <laughs> c'est vrai <laughs> donc mhm. concernant l'actualité dama dama dafa am benn point boo xam ne nii mhm. ça ma ça dama ko daf ma daf ma daf ma frappé parce que actualité bi durant vraiment ces deux jours yëpp mu ngi jublu ci la visite du président de la République n'est-ce pas à Mbour 4 Mbour 4 ouais. Mbour 4 mmh. à Thiès mmh. n'est-ce pas avec toute son n'est-ce pas l'arsenal ñëpp ñëw les gouverneurs les mmh. préfets tout le monde ñëw mmh. ñu visiter le site c'est vrai c'est vrai baax na baax na ñu évaluer euh, boo leen fàttali ko Abdoulaye Wade bi muy soog a ñëw président Abdoulaye Wade que j'aime bien mu nekk góor gu am am am caractère. Mm-hmm. n'est-ce bi mu ñëwee dafa jëkk def les états lieux. de de de de du foncier. Mm-hmm. n'est-ce pas. Mm-hmm. ba ñëpp taxaw ku nekk sax xam nga xam nga nekk sur la défensive mais finalement nu mujjee. fouraas. le président bi nga xam ne moo fi nekkoon tam Macky bi bu ñëwee vraiment dëgëral na. ay commission yoo xam ne ñoo yor affaire foncier. participer naa si rencontre yu bëri yoo xam ne ni noonu lay demee mais finalement mais c'est c'est c'est du pareil au même ñii nag ñëw nañu aussi il faut ñu voilà <laughs> gérer facture bi ñëw xool le foncier fu mu toll parce que foncier aussi nañu jàpp ne ça rapport beaucoup d'argent Hmm. seen intention xaw ma ko mais foncier moom day moom moo gën a gaaw ci indi xaalis te nag ñi muy indil xaalis mooy les même personne les mêmes VIP maanaam ñëpp ñi nga xam ne nii. Hmm. ñoo yëngatu si loolu soit ils sont hmm. près de de de l'État am fa doole ñu ñu jox leen ñi ñu fi jox ñëpp ñi ñu fi jox ay 40 hectares ñu fi jox ay 50 hectares dañu jege nguur gi. ñu jox leen donc man je je crois que la la solution ne pas là la solution pour Sénégalais li ñu soxla ci ci le président de la République nekkul ci ay foncier foncier benn. benn benn pourcentage bu ndaw ñoo ko yor li ñu soxla mooy le le train de vie n'est-ce pas. des mm-hmm. des des, des sénégalais. mu changé nañu wàññi nañu wàññi njëg gi loolu loolu la ñëpp di xaar. nañu mm. wàññi ceeb bi wàññi diwlin bi wàññi courant bi. n'est-ce nee na ñu ngi xool fan la ñu war a wàññi bi n'est-ce pas. wàññi location bi. <laughs> surtout yokk payoor yi. loolu mm-hmm. loolu lañ loolu lañu priorité boobu la ñuy xaar si ñoom. mais mm-hmm. waxuñu nga ñëw xëy suba. un jour de premier mai un jour de fête nga mobiliser sa équipe yëpp dem sur le terrain di wax ne kii moo war a am wala kii moo dul am loolu man jàpp naa ne du ressort ressort am mooy li urgent ñi nga xam ne moom la ñëpp soxla mooy ñu wàññi dund gi le le pouvoir d'achat mu wàññeeku. ba pare ñu yokk payoor yi parce que aussi nit ñi sonn nañu. mais président Macky Sall dafa ñu revaloriser salaire respecté wuñ ko de. nit ñi loolu la ñu yàkkamti ñu revaloriser salaire yi nga xam ne. vraiment nit ñi ils vivent dans la misère. Mm. amuñu baraab mënuñu lekk mënuñu naan parce que dañuy fay location salaire boo xam ne boo ci fay location mais doo dese dara ngay dem di di taxale ba pare ñu ngi exiger nit ñi pour ñu ñëw à l'heure di di di pointer xam non lu nekk ngi fi te loolu li koy saafara mooy ñu jël en compte n'est-ce pas salaire liggéeykat yi nga xam ne dañu dañu néew doole surtout surtout dans le secteur des collectivités territoriales vraiment ñëpp xam nañ ne ñun ñu ngi li ñuy dund moom c'est l'enfer ma fàttali Ndiaga balaa ngay sori ne yow yaay secrétaire général de l'union régionale de Dakar euh, du syndicat national des travailleurs des collectivités locales du Sénégal membre du bureau de l'intersyndicale alors les travailleurs des collectivités territoriales bi ñuy mujjee wax avant élection yi di jub demoon nañu rencontrer l'ancien ministre Modou Diagne Fada bi ngeen fi mujjee mm-hmm. après c'est la leen recevoir ngeen toog waxtaan ak moom ñu yaakaaroon ne affaire yi dina dina barki dem rek ñu ngi waxaat encore que ne grève bi ba tey dara changé wu ci euh, euh, ki moo fi ku ñu fi invité woon keroog Mballo Diathiam waxaat na ci mm-hmm. waxaat na ci ci lu mel noonu ne ba léegi yaa rien mm-hmm. fan ngeen toll évolution bi yaa rien yaa rien ak gouvernement bees bi jot ngeen gisante ak ministre rek bu ñu fiy mujj yaa ngi ko wax bu ñu fiy mujj mm. boobu ñun vraiment ñu xel daloon na ne ah euh, situation bi dina régulariser parce que on a été par le premier ministre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 donc ñun loolu la ñuy xaar xaaruñu leneen xaaruñu waxtaan xaaruñu com euh, euh, groupe de travail xamu xaaruñu commission xaaruñu comité ad hoc parce que loolu du boucler nañ ko dépassé nañ ko depuis longtemps parce que euh, euh avec le régime de de Macky Sall naa ñun dépassé nañ foofu comme état continuité la jàpp nañ ne bu ñu ñëwee aussi ñoom dañu war a suivre li dossier laaj ñu mën ko ñu mën ko ñu mën ko def. donc foofu la ñu toll système Maria nous sommes actuellement à cent vingt heures de de de grève renouvelable toutes les semaines c'est sûr que. donc benn benn semaine dernière benn lundi bi rek ngeen daan liggéey wala ba population yi ñoo siy patir gis nga da ngay population yi sax ñu ngi def ay ay ay ay ay manifestation di di am na ñoo xam ne ils sont restés 4 mois maanaam hmm. kër xam ne dafa toog 4 mois am urgence man bërki dem rek am na benn femme boo xam ne ni sama sama xarit la dama ko hmm. yërëm parce que da doon jooy mu a ma doomam doomam mu ngi depuis Canada war a inscrire pour un simple petit extrait boo xam ne war a inscrire mënul fexe ba am kayit au niveau de Gaspard Camara loolu loolu man sama yaram dafa daw ma ne ko nag mënuma si dara c'est parce que nous sommes en grève te te te les travailleurs le le, mouvement. loolu hmm. foofu la dëkk bi toll te loolu yëpp ñu ko teg mooy l'état du Sénégal te l'état du Sénégal nag Macky Sall dem na mais Diomaye moo fi nekk il faut qu'il prenne ses responsabilités. parce que l'état est une continuité. voilà la dernière fois qu'ils étaient là yaa ngi fi woon waxtaan nañ ñun ba yaakaaroon ne affaire bi c'est réglé. oui ben c'est dommage hein c'est vrai que la dernière fois ñu ngi doon waxtaan comment euh, baisser la la pression mo am. débat <laughs> avec le ministre de tutelle bon comme il l'a dit euh, je je crois que lu ñu doon craindre mo am c'est-à-dire année électorale. dafa mhm. xaw a compliqué. waxoon nga ko de le gouvernement. Mm. Euh, su nekkee ci année électorale. dafay bañ signer li nga xam ne mën na ko lor su si jamais il gagne. Mmh. bon ce qui fait que euh, lu jaadu woon quand même c'est Macky moom moo inauguré la décentralisation avec l'acte mhm. c'était un processus processus boobu ça deve aller avec la fonction publique e et mënoo am une fonction publique locale sans mhm. statut pour les travailleurs c'est incohérent de la part de l'État Bon, maintenant, malheureusement, le Diomaye, il hérite de cette question. Euh, je pense que peut-être la, la solution, c'est, comme il l'a dit, que nous avons l'union rare, moins que le, le, le, président signe le, le décret. Mm Je pense que le Premier ministre et le, et le président de la République doivent signer. Ils, ils n'ont plus, à la limite, de, autre solution. Au moins signer. mais Maintenant, discuter sur la mise en œuvre d'ici euh, six voilà. mois, d'ici un an. Voilà. Euh, progressivement, tu mets en œuvre un accord. Mhm. mënoo ko def 100% tout de suite mais quand même. Mm -hmm. tu signes la la grève s'arrête tu discutes sur les modalités de mise en œuvre de ton engagement. Mm je, pense que gouvernement am na intérêt def lool D'autant que dans les six mois à venir, tous les autres syndicats qui sont dans le même cas, c'est-à-dire respect des accords de l'ancien régime, ça va leur tomber sur la tête dans les six mois. Donc vaut mieux que le Premier ministre anticipe, bon, qu'il reçoive les, les, les, les syndicalistes, qu'il mmh. signe. Mmh. Maintenant, ñu jël des mmh. le, le mal moom il est là. Euh, maintenant, il restera la, la question bon de la fonction locale. Mhm. c'est-à-dire lu ñu coow euh, pour moi le le, le c'est ça le débat de fond c'est-à-dire que Diomaye il veut faire des ruptures il veut faire des réformes mais toutes mhm. les réformes là vont passer par la collectivité territoriale mhm. c'est ce qui fait que euh, moi je maintiens toujours mon idée c'est-à-dire que le l'administration mu nekk l'administration centrale mu nekk l'administration locale. Mmh. mais il faut mu jaral leen toog. Hmm. avec l' administration. Hmm. travailler avec l' administration. parce que hmm. administration bu doxul état du dox. gis nga lu ñuy coow nii ay état de droit état c'est une continuité tout ça c' est des est des concepts. mais le fond c' est l' est le travailleur. moom s'il n'adhère pas. wala s'il ne se sent pas dans les politiques publiques mais mooy par exemple lu mu wax peut-être que les gens voient le. les gens qui veulent aller faire le, le, le font le CM2, les autres mmh. qui hmm. vont faire le, le, BFM, les autres le bac, les autres qui veulent euh, après le bac aller à l'étranger. fu ñuy jaar ba am papier. je, je ça, pense que le gouvernement doit quand même prendre conscience que euh, les victimes, ce sont les populations les plus vulnérables. Hmm. Hmm. et ça quand même euh, suñ ci yokkee nag euh, le le problème qu'il a posé le problème des denrées là hein? bon ça fait quand même trop pour, un, nouveau, gouvernement ça va être extrêmement difficile de gérer mm. les travailleurs de dans les collectivités territoriales les populations qui sont fatiguées mm. et puis kenn xamul aussi hein l'impact que ça peut avoir sur l'éducation wala voilà, la santé surtout parce que xam-xam le le le le secteur de la santé il va il va bouger peut-être dans. dans dans quelques mois. suñu gisul lu ñuy xaar ni. Mm-hmm. bon euh, je... en fait c'est pour dire que honnêtement. Euh, pour man c'est ça les urgences c'est ça les mm-hmm. urgences. Mm-hmm. tu euh, que vraiment que gouvernement bi na na gën a dal. xool les véritables urgences. li nga xam ne lii su ma ko réglé wul. dina ma yàqal les six mois à venir là mais loolu mooy urgence politique. Mmh. c'est difficile c'est très difficile parce que li muy wax tellement que bon. Euh... parents d'élèves yi ils ont des problèmes. parce que comment les élèves mais élèves yi compliqué de xam nga tax euh, doyen dafa wax léegi les couches vulnérables. les sénégalais lambda yi nga xam ne ñoom ñoo ciy pâtir. mais comment ils arrivent instant bii nii nii ils sont en train d'inhumer ah ngi ñu ngi ngi kii comment comment ça se passe. pour pour l'inhumation l'inhumation. ma amul problème ñu koy joxe permis waaw am na lu ngeen di bàyyi au moins mu jàll quoi. déclaration de naissance mariage et autres yeneen kii ak l'administration même de de des communes et euh, vraiment tout est paralysé ah. sérieux moo tax nag ma ne la nous les parents d'élèves nous souffrons <laughs> nous parce que xam nga pour pour inscrire les enfants. Mm. parce que grève bi dafa yàgg. dafa yàgg dafa yàgg et puis euh, je pense que su nekkee euh, dans le cadre de la continuité de l'État décret d'approbation rek moo ci des. ça sera pas facile parce que aussi xam nga nous avons un gouvernement qui vient de s'installer mhm. et tout décret de probation dafay am incidence financière parce que on parle de d'augmentation de salaire xam nga donc euh, il faut régulariser certains et masse salariale bi nu mu toll et euh, voilà et qu'est-ce qu'ils ont trouvé sur le pays et puis peut-être pouvoir bi ko bi bi bi joxoon proposition boobu bi dem pouvoir politique bi joxoon pouvoir position solution boobu ba comité ad hoc bi mettre en place est-ce que les propositions yi nga xam ne defoon nañ ko ñoom ñoom ça les arrange parce que je sais que le ministre de de, de des collectivités a hérité de ce dossier là mm. bon dans sa stratégie il veut je pense qu'il veut tout reprendre parce que boobu naan il faut mettre non, un non, groupe de travail il faut mettre en place des groupes de travail des groupes mm. mm. na ko xalaat gisaat mais bon man je ne pense pas que war na mun a demee noonu parce que dans la démarche aussi su nekkee décret rek moo ci des et que le décret est sur la table du président de la République pour accompagner la population ci li ñuy def ak coono bi ñuy dund nii. je pense que bon modalité yi la faisabilité il faut signer et discuter sur sur la parce que pour man présentement il faut discuter sur la faisabilité. comment ça va se passer d'ici trois mois on, on, on intègre une partie d'ici six mois augmentation bi noonu lay demee pour pouvoir régler sa question parce que suñ ko réglé wul ça va paralyser tout un secteur parce que doyen wax na ko gis nga la santé collectivité territoriale yi ñooy gérer yenn partie. ñu ngi ci biir ñu ngi ci biir ñu ngi ci biir est-ce que tu comprends. ñu ngi ci biir l'éducation. ñu ngi ci biir c'est une compétence transférée. ñu ngi ci biir donc ça peut bloquer tout un secteur tout c'est-à-dire. nous sommes dans les dans les enfants préparent les examens nous mm. sommes vers la fin de l'année. donc dañuy soxla ay dossiers ak nangam sangam je pense que euh, comme ni nga ko waxee urgence bi c'est de régler cette question là. Mm. c'est vrai euh, soo soo yow yaa hérité loolu. jooy bi warul warul am. parce que yow yaa wax ni mën nga. ñi fi mm. nekkoon mënuñu. yow yaa wax ni mën nga donc jarul jooy il faut il faut il faut il faut il nga jéem a respecter li nga xam ni moom moo fi nekk. Mm. parce que secteur bi am na mais am na am na am na am na lu gën a graaw au-delà des collectivités territoriales parce que loo Haut Conseil des collectivités territoriales dégguma leen ci ñu wax ci. te normalement dañ ci war a dañ ci war a wax. normalement. parce que y a des membres du conseil. Euh, la dame Amine Damaga Ndiaye. les les certains des membres sont issus des collectivités territoriales. donc. do plateforme bi doléance bi dafa waroon nekk ci table présidente bi pour mu mën ko porte pour ñu mën a signer décret. mais nekk na fi n'est-ce pas donc. ñoom le waroon na tax ñu. ñoom ñoo waroon voilà ñoom ñoo waroon régler cette question là. il y a une autre question c'est la question des membres du conseil économique et social nommés et jusqu'à présent qui ne sont pas encore installés. jusqu'à présent donc c'est des difficultés qui sont là qu'ils ont héritées et qu'ils doivent régler. rapidement pour passer à autre chose rapidement pour passer à autre chose. parce que suñ ko réglé wul. Mhm. day bloqué parce que surtout nag les collectivités territoriales. vous savez vous savez Adama doguma la sax mais état continuité la. Euh, état état dafa dafay dafa dafa war a jël les les priorité la priorité des priorités maanaam li gën a urgent. parce que ñoom lool lool la ñoom li gën a urgent la ñuy la ñuy jël ko di xaar la ne parce que aussi c'est c'est c'est loolu noonu lay doxe état noonu lay doxe maanaam amuñu lu mat amuñu loo xam ne mën na mën na jëriñ ñëpp à la au moins am na ay priorité am na ñoo xam ne ni vraiment ñoo gën a nekk xam nga ah si dans le besoin. oui xam nga xam nga un chaque ak priorité waaw ku ñëw installé wu da ngay am sa priorité bopp ñoom leur priorité c'est le foncier. waaw <laughs> foncier baaxul <laughs> boobu baaxul. non dégloo ah. dama la ne. Hmm. fi nga gis ñu gën cee appesantiru c'est le foncier. Hmm. c'est une des priorités des parmi les priorités yi ñaam deuxième priorité c'est ça vient des prix mais yow da ngay jàpp ni lii moo war a nekk sa priorité. sa première priorité parce que yow la concerné. mais mais collectivités territoriales yi Adama Fall génnuñu jox ci affaire foncier bi. moom laa loon parce parce que les délibérations ñoom ñoo. ñoom ñii ñoo koy joxe. non waaw mais ñun ñoo koy joxe mais sous l'autorité de de de de de des exécutifs locaux ñun ñun amuñu dara luñ ciy luñ ciy def ñun dañuy sant rek ñu liggéey maanaam li ay liggéeykat lañ mais. kuy délivrer kuy signer c'est les les exécutifs locaux ñooy signer mooy les présidents les les les les maires et les présidents du con pas président du conseil mais les maires en ñoom ñooy signer les yi ngay wax. ñun dañuy liggéey loo rek liggéey rek maanaam ku nekk secteur bi nga nekk da fay da fay xam nga tuur sa ñàq. mais Mballo ba mu ñëwee fii euh, kii. Ndiaga Ndiaga. Hmm. ba mu ñëwee fii. il a parlé des recrutements au niveau des municipalités. Mm -hmm. les recrutements mais est-ce que loolu du nekk source de blocage par rapport à ça. non non loolu dépassé nañ loolu gis nga nag gis nga ko xamul mbaalu peut-être bu maîtrise de dossier bi na laajte. non maîtrise na dossier non non non non non attends attends gis nga euh, dépassé nañu voilà euh, recrutement politique yooyu parce que def nañu recensement ba mu pare. nañ ko non a dit oh sax. xam nga. ba xayma nañ ko mu nekk si benn nom boo xam ne xam nañ ko ñoom xam nañ ko def nañ si liñ ci war xam nañ ñi ñu certifié xam nañ ñi nga xam ne ni ñoom la téye woon sax yóbbu leen panier rouge mais finalement ñu dem fournir. voilà il a parlé des des paniers. non c'est ce qu'il a dit moom c'est ce qu'il a dit nee na il reste que boobu ñuy wax noonu man. romb nañ loolu maa ngi woon si benn émission waxtaan nañ ci mais dama wax ne ñun loolu du suñu du suñu euh, wàll maanaam duñ ci wax parce que xamul tax mooy agent agent ku nekk agent rek nekk ci périmètre bi rek ñun dañu jàpp ne dañ la war a défendre donc ñun ñun dañ koy sous-entendre loolu clientèle politique wala recrutement politique dépassé nañu leen parce le centre national de la fonction publique de la formation def nañu liggéey ba mu sotti ba boucler ko le dossier est devant devant le ministre des collectivités territoriales maanaam agent municipaux yi 15 971 boucler nañu ko. ah oui waaw ah oui 15 900 même pas 16 000 donc loolu incidence yi ngay wax noonu sax bariwul parce que gis nga ñun bu ñu defee euh, la simulation xaalis bi bëriwul. ñaata la. non matul sax 3 milliards pour ñu nga xam ne mën nañu. fay annuel annuel mën nañu fay maire yi nga xam ne insuffisance de de de ressources mën nañ leen mën nañ leen mën nañ fay bu ñu ko defee ñun parce que ñun aussi ay am nañu ay techniciens yoo xam ne ñuy liggéey ci dossier bi bu ñu defee simulation matul sax 3 milliards pour que mën a fay ñëpp mais 3 milliards que signifie 3 milliards pour un état. c'est c'est non non non dama dama lay dama lay foofu xam nga parlé ils étaient ils étaient en quête de de de pouvoir bi ñuy wut pouvoir ñoom bu ñuy pouvoir je peux nommer même le le le premier ministre Ousmane Sonko il a fait une déclaration. ñun yor nañu vidéo yi am na ñu ko fekkee woon n'est-ce pas. muy muy muy muy dal ci kaw l'association des maires du Sénégal. oui mu dal ci seen kaw. oui ndax na ils sont incapables. de de régler ce petit problème boo xam ne ni pour agents municipaux yi nga xam ne depuis ay weer ñu ngi grève ñoom mënuñu régler ce ce ce ce problème là moom en tant que. Euh, euh, candidat en tant bu candidat candidat la woon. nekk maire de Ziguinchor mu wax ne depuis ñaata weer liggéeykatu maire yi ñu ngi grève te association euh, des des maire du Sénégal. AMS mënuñu fexe ba ba ba taxaw ci pour que loolu saafara. ba créé woon sax bo bo bosu boppam maanaam. créé benn réseau des élus locaux mm. du Sénégal moom moo ko créé boppam pour wax ne du bokk ci bële parce que ñële ils sont incapables mais ana ana bi mu réseau bi mu créé woon le le réel. Mm-hmm. mais ñooñu li ñu waxoon ba léegi moo fi nekk parce que xam nañ ne c' est un droit légitime xeex nañ ko fi ñu ko war a xeexee waxtaan ni wax nañu li ñu ci war a wax ba dañu dañu war a signer li nga xam ne mooy acte bi nga xam ne mooy. signature loolu rek moo fi des. te léegi amatul prétexte amatul dara ñoom li doon wax ci biti. bi ñu nekk bi ñuy wut nguur moo réalité moo nekk seen kanam actuellement nii il tarde le premier ministre il tarde à nous à nous recevoir parce que xam nañ ñun aussi argumentaire yi ñu fa yóbbu parce que depuis le 18 avril ñu ministre de tutelle waxoon ne dans les meilleurs délais les des délais brefs incha allah le premier ministre va nous recevoir le 18 ak léegi mu ngi bëgg a yàgg le 18 ak léegi def déclenché nañ fi décrété nañ fi de deux fois 120 heures te ñun du tant que. recevoir ñu wax ñu ne seen seen lii kat paiement bi dina dugg si weer bii ñëw wala ñu wax ak ñun ay accords yu comme ni ko doyen waxee nekk ñun kat fii de nii lañ toll lii lañ bëgg ñu waxtaane ko signature signé nañ leen document est-ce que doo leen suspendre ñu waxtaan mm-hmm. mais bu loolu bu amul on va continuer la grève jusqu'à vraiment satisfaction doyen très bien ba pare c'est un vrai c'est un vrai problème maintenant maintenant la difficulté c'est-à-dire mm. ce qu'ils héritent là xam nga même les derniers mois on a augmenté les les les euh, euh, bon c'était un acte politique mm-hmm. c'est ça qui envenime la relation en réalité mm-hmm. bon mais Maintenant, la difficulté, je, je, moi je suis d'accord avec lui, il faut trouver une solution. Mhm. C'est-à-dire que les maires ne peuvent pas gérer la masse salariale. Mmh. C'est ça la difficulté. Et mhm. l'État mmh. ne veut pas prendre en charge cette masse salariale parce que tout de suite, la Banque mondiale, le FMI vont te tomber dessus parce que mhm. tu vas augmenter la masse salariale. Tu vas augmenter aussi les indemnités. Donc le budget va augmenter. Bon, mais ça, c'est. Bon, c'est connu. Euh, ils héritent une bombe. Mhm. Euh, donc, le fait de sortir le décret, pour moi, c'est ça qui dénoue le, la mhm. crise. Voilà. Ça, il faut signer le décret à partir du moment où il y a accord. Ou même s'il y a peut-être, euh, au cas extrême, un amendement, euh, tu mmh. amendes, mais quand même, il faut dénouer la crise mhm. en signant le décret. Bon, quand même 15 000 travailleurs, c'est pas rien. ah euh, 400 ou 500, 600 collectivités territoriales c'est pas rien donc politiquement le, président a intérêt à signer son son, son décret pour euh, dénouer maintenant li ma doon wax mooy que la fonction locale ça il faut que mu am débat gis nga gis nga ñoom il pose de vrais de vrais vrais problèmes c'est tu, tu le même problème au niveau de l'éducation mm -hmm. c'est le statut de l'enseignant il faut sortir pour man Diomaye doit sortir l'administration de la précarité mmh. c'est ça la vérité mhm. tout à fait c'est ça la vérité c'est-à-dire que les gens lutter contre la corruption loolu tax man je suis je suis euh, je suis très sceptique c'est vrai que les Sénégalais n'aiment pas la vérité c'est-à-dire suñu diggee fii que ils peuvent baisser tous les prix ils racontent des histoires c'est c'est pas possible économiquement amuñu benn ressource financière pour soutenir une baisse générale c'est c'est, illogique c'est utopique mhm. mais li nga man c'est de dire la vérité à ton peuple. Mhm. Mhm. parce que les gens quand même peuvent supporter six mois un an deux ans mais à condition nga régler par exemple li mu wax le problème de base là c'est le salaire c'est le salaire c'est mais le problème de de de c'est le salaire mais comment Diomaye doit s'inscrire dans une perspective d'augmenter les salaires mhm. pour pour man s'ils envisagent ça tout ce qu'ils vont demander comme effort au travailleurs ils vont accepter bien sûr mais deuxième problème lui euh, il parlait tout à l'heure du foncier mais c'est dramatique pour tous les travailleurs pour am terrain mhm. <laughs> <laughs> mais mais pour am terrain tey jii même non pour am terrain au minimum tu as quinze millions dans dans la banlieue foo jëlee quinze millions <laughs> soo lebee quinze millions comment tu vas payer quinze quinze millions comment tu vas payer ça. tout à fait par même pas de conseil. ñuy wax nag ay foncier man foncier bu ñu ko doon lijjanti nag ba yenn terrain ñu nangu ko xam ne ñii même bu dee si ñun nga bokk sax dañ la ko mayoon waruñu la koo may c'est ça le problème. voilà c'est man. par exemple s'il le problème du salaire. sur le foncier là dire aux travailleurs que vous avez droit à un logement décent. tout travailleur comme Abdou Diouf un logement social. un logement social mais un doomi doomi mais quand même l'État peut te soutenir nga am au moins un logement décent oui. que que tu payes c'est pas gratuit et c'est en plus c'est un droit et, je mhm. pense que Diomaye il doit ouvrir euh, tu sais quand une société est en crise chacun ne gère que ses intérêts mm-hmm. c'est normal mais état bi moo war a gérer l'intérêt général c'est-à-dire que le travailleur tey jii c'est le salaire c'est l'accès au logement bon on n'a pas parlé de l'éducation ouais. mais l'éducation coûte extrêmement cher ah mmh. aujourd'hui soo bëggee yóbbu sa doom à l'université mais l'année c'est un million mmh. ban paysan moo mën a yóbbu doomam un million par an pour mu jàng je pense que honnêtement les problèmes sont la mais que le que l'actuelle majorité en tout cas bu ñu yaakaar que le <laughs> Sénégalais lu ñu doon nangu dinañ ko nangu. dinañ ko nangu et puis l'immigration continue. les à Saint-Louis mmh. rek. démb rek y a eu des morts. Il y a eu deux morts. Euh, un bateau qu'on a retrouvé avec 200. Ça veut dire que. et qui a quitté Joal. ça veut dire que le mal est plus profond. le mal est plus profond ça continue. ah que que ñoom suñu moytul ñoom tamit lu dal Macky Sall moo leen nar a dal. ça les les tragédies euh, de. de la mer là moi j'ai peur moi j'ai peur. on va on va vers ça pour ce pour ce nouveau gouvernement moi j'ai très peur parce que. Euh, li nga wax léegi li nit ñi daan muñ peut-être dootuñu ko muñ mais dafa am ay beaucoup beaucoup beaucoup de promesses yoo xam ne bon on dira que les promesses euh, que que les ki ni ñu koy waxee sax n'engage que <laughs> donc ñu ngi commencé gis leneen luñ ñu lu ñuy waxoon ak liñ ñuy wax du benn li ñu commencé gis dafa dafa teey xel on parlait de direction ci ci ay appel à candidature xaw na teey xel moi j'aurais bien aimé qu'on nous explique le pourquoi mooy li ngay wax le langage de vérité qu'il faut tenir nit ñi da leen di wax dëgg rek soit ñu ànd ak yow ci dëgg bi nga leen wax soit ñu bañ a ànd ak yow ci dëgg bi nga leen wax mais les la population n'a pas le temps te du ñu leen jox temps boo xam ne aussi ñoom peut-être mayuñu ko woon nit ñi aussi pour ñu toog xëy na xalaat mais là moi très très très peur. que li daloon yeneen gouvernement yi lu gën a pire dal leen. mais j'ai très peur gis fii rek. sur la situation des collectivités territoriales mën nañ ci tenir langage de vérité. Mm-hmm. oui nous allons mm-hmm. mais may leen ñu ñu defee ko nii ak nii ak parce que situation bii moo fi am. Mm. parce que ñoom il ne demande qu'à être reçu. ñu wax leen lu leer ñu signer ay accords. ñu mun a lever le mot d'ordre et je parce que loolu yomb na. yomb na lool donc il faut lance demander au président premier ministre de recevoir le syndicat. Mm-hmm. ñu toog ñu waxtaan. demoon ngeen premier mai au palais. Oui, bien sûr avec la les centrales syndicales. n'est-ce pas su ñu toogee ñu waxtaan. Mm-hmm. ñu signé accord yi. Mm-hmm. d'accord ne nii lañ koy defe il y a eu augmentation de salaire ici du temps de Macky Sall. mais dañ ne mois bi. Mm, mm, mm, boobu tamit problème bu rëy ci am. non waxuma la waxuma la bu mag bi. non non bu mujj. bu mujj bi laa lay wax nii waxuma bu mujj bi am am na augmentation bu njëkk. ci am 170 000 et quelques euh, fonctions publiques dañ leen yokkal. waaw mais cest xam nga fonction publique nga wax. waaw fonction publique. privé bi lu ci président Macky Sall lu mu non fonction bi non non li ma waxoon ci privé bi. ba ba mais privé bi respecté wuñ ko. non cest à xam nga foofu il faut il faut revoir il faut revoir la la convention la convention collective. Mm. mais dans la fonction publique li ñu waxoon pour les enseignants dañoo augmenter temps mooy ba ñuy augmenter indemnité de logement mm. dañ ne année bii dañuy dugal di di vingt mille. Mm. di ñu dem ci digg anne bi ñu dugal dix mille. ñu dem ci fin d'année bi loi de finances initiale beneen bi ñu dugal beneen beneen dix mille. donc loolu lañu def ba regle la question de l' augmentation de 40 000. Mm. mais su nekkee fii augmentation financière bi dafa nar a am incidence financière bu énorme mm. mais je pense que mën nañ ko dagg dagge mm. parce que il faut trouver des solutions à gouvernement quand parce que suñu ñu suñu bëggee ñoom ñu régler la question des collectivités territoriales augmentation bi su nekkee 40 000 francs la exemple mais nañ ko tas. Mm-hmm. dans la ne nga xam ne dañ naan année bi janvier dina dugg vingt mille francs yi dina dugg. juillet dix mille francs yi dina dugg janvier deux mille beneen benn vingt mille francs yi dina dugg. ay la yëwén ngeen lever mot d'ordre bi les collectivités territoriales vont commenter ak fomenter te mm. ak commenter maintenant nag qu'on mette en place un comité de suivi des accords signés surtout suñ ko defee. des les les problèmes seront réglés. bureau bureau bi ñu def au niveau du pal de euh, mooy le BOM. waaw bureau de suivi d'évaluation bi nga xam ne dugal nañ ko au niveau de la présidence. se ah. chargera de suivre les les engagements pris parce que ba syndicat yi demee le président de la République a pris des des gages des engagements. parce que cahier de cahier yi jot na ko. Mhm. doléances yi bëri na. Mhm. mais il a pris des engagements. Mhm. maintenant avec ce bureau de suivi des évaluations il va faire le suivi de ces de tous ces dossiers là. ñu mettre ko en place pour pouvoir sauver le Sénégal présentement ci loolu lañ toll. parce que collectivité territoriale suñu soo leen continuer grève bi waxuma la bii su jeexee ngeen reprendre ak 120 heures.

grève bi métti na mais en fait liñ ciy perte. voilà moo ëpp sax liñ ci liñ ci mën a gagné que ñu signé ñu signé ñu signé décret bi. rapidement on passe à autre chose nit ñi mën a liggéey dugal xaalis. parce que sama genre gi man j'ai besoin d'un d'un dossier depuis <laughs> depuis presque vingt jours. xam naa mën nañ la ko régler. non loolu loolu xam tey bu dee ku bu dee ku ko lijjantil sa bopp. non ko régler kon kon kon ko régler duñu ko régler. c'est sûr que c'est sûr que parce que c'est une même circonstance euh, mu waroon am euh, këyit quelque part ci benn maire mu woo ma mu ne muy foofu pour ma wool ko euh, officier d'état civil bi pour que ñu mën ko signer ma ne ko non non ah. non c'est une règle boo xam ne ni vraiment dañ koy kii pour ñëpp non donc mënuma mënuma mënuñu mënuñu vraiment arranger cette cette situation mm-hmm. mais damay conforter la position de de du doyen vraiment que je salue au mu nekk vraiment xam-xamam nekk si am wàllu ci économie mm-hmm. wax surtout vraiment incidence incidence bi nga xam ne moom la moom la yokk bi di di di di di mën a entraîner mhm. je crois ñoom xam nañu ah ñoom xam nañu l'état du Sénégal l'état du Sénégal je si je veux dire l'état du Sénégal mooy Le, le trésor public mooy euh, le le ministère des finances. xam nañu xam nañu maire yi nga xam ne mën nañu bu ñu signé woon tey suba ñu fay. xam nañ ko xam nañ maire yi nga xam ne bu ñu si woon tey suba ñu fay. Mhm. mais il suffit il suffit. de renforcer maire yi nga xam ne mënuñu ko am na maire yoo xam ne mënuñu ko parce que am am dem si benn dëkk boo xam ne maire ba amul sax benn euh, euh, euh, marché wala kii marchand boo xam ne ni mën na ci am ressource en dañuy dundee ay ay ay transfert la ñuy dundee ay xam nga fonds. fonds de dotation ñooñu ñooñu xam nañ ne mënuñu ko fay. Mm-hmm. mais am na par contre maire yoo xam ne ni ils ont. Mm-hmm. ay ay mm-hmm. ay budget yu baax. yoo xam ne ni vraiment lii mënu leen mënu leen mënu leen tenir tête nest pas donc ñun ñooñu ñooñu. jàpp nañ ne maires yi nga xam ne ils à à à insuffisance de de ressources c'est prévu par le par par par par par les collectivités territoriales. ok dans son article 282 dañ ne maire maanaam maire yi bu nga xam ne dafa am ay ay insuffisance de ressources c'est l'État qui va appuyer n'est-ce pas pour que ñu mën a. Mhm. Euh, euh, euh, satisfaire cette cette augmentation. defe naa loolu leer na ñun jàpp nañ ne du ñëpp. du ñëpp sur les 601 communes que compte le Sénégal jàpp nañ am na 200 et quelques communes yoo xam ne mën nañu fay mën nañ seen bopp mën nañu fay donc ñeneen ñi nga xam ne nii peut-être mënuñu fay ñooñu lañu mais état war accompagner loolu nag fourchette bi bëriwul. Hmm. nañ ko ñemee bëriwul ñun def nañu simulation yi am nañu ay techniciens yoo xam ne toog nañu ñu waxtaan xool parmi ñi nga xam ne ñoom la périmètre bi jël yëpp ñaata la ak nan la la incidence bi annuelle ñaata la pour que ñu mën a mën a jublu si mais nañu dénouer le le le problème mooy. au moins ñu signer cet acte la ñu xam ne oh ñun kat jàpp nañ ne li ñu faveur bi ñu jox les les les les travailleurs de la fonction publique jox nañ ko euh, jox nañu la même faveur au travail de de la fonction publique locale mais jàmm na ñooy ñu xool nag les modalités nan la at at mii mën nañ dugal lii ainsi loolu waxtaan la mm-hmm. mais bu ñu invité wu si loolu ñun on va continuer notre notre combat parce que loolu rek la am c' est notre dernier recours gis nga grève bi mooy suñu dernier recours def nañ rek def nañu ay marche def nañu ay sitting def nañu yëkkalu nañu façon conférence de presse def nañ lu nekk mais mais grève bi mooy suñu dernier recours te duñ ko bàyyi tant que amuñu satisfaction. Mm-hmm. kon ñun dañuy invité nest pas le premier ministre Ousmane Sonko je l'interpelle directement parce que aussi moom situation bii dund na ko xam na ko. dëkk nekk maire Ziguinchor. ànd ak ànd ak ànd ak waa Ziguinchor am na à un moment donné sax xaw ma na. xawoon na sceptique il était sceptique au tout au début. mais finalement moo def déclaration fii à la mairie de de Golf Sud devant devant devant le maire mu ne l' des maires bi nga xam ne ni ñooy war a conduire dossier bi ils sont ils sont incompétents nest pas. ba créer réseau boppam muy muy le réel dafa naa ñëpp a ngi fi docu les documents sont sont là les moom moo defoon cette déclaration ñun nag dañ koy magnifier jàpp nañ ne mu ngi si disposition yi pour recevoir l'intersyndicale ñu discuter autour d'une table pour que vraiment ñu saafara lii une bonne fois pour tout jàmm na ñooy ça fait presque deux ans on avait débuté en septembre 2022 c'est trop le 21 septembre 2022 lañu jëkk a commencé jusqu'à présent mais septembre jours pour que ñu ñu ñu boucler deux ans de grève loolu dafa ëpp ci ci ci ci Sénégal et puis ñun voilà ñun sonn nañu sonn nañu parce que aussi euh, euh, xeex dafa métti boobu ba léegi ñu ngi xeex ak le l'état ñi fi nekkoon le gouvernement de Macky Sall dem nañu ñii ñëw nañu te bi ñu ñëwee ñun ñëpp dañu amoon espoir bu mag a mag espoir bu mag l'espoir est toujours non bu mag ñu ne bu ñu ñëwee ñii wala seen première chose mooy ñu ñu ñu ñu ñu décanter la situation des collectivités mais jusqu'à présent vraiment ñu ngi ñu ngi ñu ngi xaw a sax jaaxle parce que bu fekkee dañuy dañuy dañuy dem conseil des ministres du ñu tudd sax xam nga la dossier des collectivités locales ñuy wax yeneen dossier yoo xam ne moom c' est sûr que le dossier des collectivités locales moo gën a ñun nag vraiment ñu commencé de mais nag la li ñi nga xam ne moo koy moo koy faj ñoom dañu xeex ba yegg seen pouvoir dañu xeex ba yegg si pouvoir ñu aussi nañu xeex bu jël suñu li nga xam ne ñoo ko ñoom dañu xeex. bay ñun tam dañuy xeex bay jël li nga xam ne ñoo ko moom. Mm. donc damay dama may may rek ma déplorer benn situation bu xam ne moo xew ci dans toutes les maanaam benn benn exception bu am dans toutes les six cent une communes du Sénégal. mooy la situation des travailleurs de Kaolack. dafa naa yéen a ngi koy dégg. Mm-hmm. bu a baax c'est vrai. Mm-hmm. dafa naa yéen a ngi koy dégg. c'est vrai. Mm-hmm. Serigne Mboup il se permet de tout faire dafa mel ni ku nekk ci entreprise privée parce que moom loolu la xam moom entreprise privée la xam. dafa bëgg a jàpp nit ñi comme jaam ay travailleurs yoo xam ne ni seen seul tort maanaam li li li mu leen mere mooy dañu dem grève mm-hmm. ñoom dem nañ grève am une partie une une minorité boo xam ne demuñu grève muy sanctionner ñeneen